لا جورجا وخون إبراهيم رياحي رب ربي ربي إني صدقت كل ولي ربي إني صدقت كل ولي رائيا قدرهم بعين احترامي تأمن سري sëriñ la waaye teewal mu ni yàlla wali yu woo am gëm naa ko teyit bëtu orma xoole seen daraja ba mu ko waxee daraja bu nag yàlla jox na ko ko dama dem njaareem seeti sëriñ moon bay siise wokk ma ma topp ko mu ni ma mbaa yaa ngi ñaanal sa turandoo ma ni ko waaw mu ni ma jàmbaar la waaw ma xam ni euh, Sidi Rayaaxi am na mbokkum taalibeem fii waaw loolu lu am solo la